Amen aoudu billahi min alsheytani irrajim bismillahi arrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki réew mi bokki bitim réew foofi waay mën a nekk noo ngi leen di nuyu fas yéene dikk ak yéen tey ci waxtaane dund koo xam ne senegal dootu ko fàtte muy Serigne Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir senegal dootu ko fàtte ngir doon gi mu doonoon ab jullit boo xam ne li ko waroon lépp ci diine def Sénégal dootu ko fàtte ngir doon gu mu doonoon sëtub Cheikhul Khadim liggéey liggéey yu rëy rëy ci yoonu murit Sénégal dootu ko fàtte ngir doon gi mu doonoon liggéeykat kat àddina bépp xam loolu ci moom Sénégal dootu ko fàtte ngir doon gi mu doonoon patriote panafricaniste bu bëggoon am réewam kooku lañ fas yéene dugg ak yéen ci ak dundam muy Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir Moustapha Bachiru Mbacké eh, ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Khadimu Rasoul mooy taawu Serigne Bachiru Mbacké mi ngi ganee àddina Darou Salaam Kayal 1928 waaye juróom wii di Cheikh Mamadul Bachir xani yu na ani taarif du ku ñuy présenté ndax ñépp ko xam waaye juróom soxna Binte Jaxate moom sëriñ ma xujj faafaal jaxate mi nga xam ne moo sëriñ ahmadou asta mi jur sëriñ am satu ñoo bokk wenn way jur muy maam masata dun kon diggante bii mooy diggante bi sëriñ moustapha basiru génne nu gis ne kon dafa juddu ci lislaam nàmp ak morit bi ñu ko taxawoo ba mata dal sëriñ mudu moustapha mbakke turandoom dalal ko alxuraan jébbal ko sëriñ daam abdourahman loo mu jàng fa ab diir ñu door koo jébbal sëriñ ibra bint silla mu am fa ab diir ñu soog koo jox nijaayam sëriñ mawlud jaxate fa la matule alxuraanam fa la sëriñ moustapha mokkale mokkal gu rafet def ni ay nawleem def bind ko mbind mu jub mu rafet mu aw yoon ba mu ca noppee nag sëriñ Basiiru baayam jébbal ko ki nga xam ne mu di sëriñ Habibu Mbàkke moom sëriñ Mbàkke Kajoor imaamul allaama mu jàngal ko lépp lu ñuy xam mu gis ne sëriñ Basiiru def na li sëriñ Tubaa waxoon ne moom lañu war a def njaboot bi njaboot dañu leen di teg ci yoon mooy tax bu ëllëgee ñu mën a tege ci yoon wa minhu tarbiyatuka al awlaada li koy kay yanaalu baxdaha rasada loolu nag la sëriñ Basiiru Mbàkke def ci sëriñ Moustapha ba mu ci sëriñ Abibu la dellu ci loxoy sëriñ Basiiru Mbàkke mu yaral ko boppam yar bu rafet boobu nekkoon ci moom nga xam ne moo rafetaloon aw doxalinam ci lépp ak ci képp ak ci fépp liman saa bi taysiri wa wa qadiru fakrim bihi rabban nawa anni alida wa safan naliwan janaabu aqiru nee na ku bëgg diine lislaam la la tàmbalee ci yonent bi ak saaba yaa naw nag moom ba ci sëriñ ba ci ñi nga xam ne ñoom la bokkal jamono kenn ku ci nekk gëstu na la nga xam ne lii ne moom nga doon jëf ci lislaam ne di la ca kañit bu baax di ko feeñalit bu baax di la ko taggalit bu baax mel ne koo xam ne kii danga ngaa dem ci toolam di ko bayal ci toolam ne képp koo xam ne kii liggéeyal nga lislaam loola la lay jàppee nee na loolu yi nag mooy bëgg lislaam gi nee na ku gëm Sëriñ Tuubaa la xàmmee sama ndeyjoor ak sama càmm laa yëg ni ma sëriñ Moussa yittale yëg googu nag moom laa doon dund ak moom ba ni ma jiitoo ak njàmbaar lañ ko mën a tuddee ndax mënees na koo tënk ci njàmbaar waaye man booba gone laa li mu wax ak man moo di fekk booba maa ngi dugg jàngu xam-xam li mu njëkk a wax ak moom mooy li mu dénk ma góorgóorlu si njàng mi na eh, man bu ma xamee rek mel ne xam na loolu la ma loolu laa jëkk dégg ci ay waxam ci loo xam ne eh, da waxtaan la boo xam ne sama diggante ak moom la loolu laa doon dund ci moom teel a ak njàmbaaram ak jomam ak ñàkk gi nga xam ne ñàkk na koo tal dara lu dul responsabilité boppam masuliyaatu boppam da ko jógaale rek man nag loolu laa doon tiit ci moom teel naa ko loolu laa teel a yëg ci moom ba di métti lool ragal mu am benn gàll ay gàllankoor foofu nag la dëgg dëgg sax eh, eh, tàmbalee gën a di yéeme ndax yenn bu rëy bu diis boobu ci tolluwaayam moom ci boppam diggam ak adduna ak tolluwaay sëñ Basiru boole yépp yenul ko boppam loolu sax mooy kiimaan gi ndax dafa mel ne boobu su dugg na lëg-lëgu adduna xel fa muy bàyyi ko ci sa borom tudd ak leer bu tawee si nit yi jukko jukko lay doon jukko yi nag bu ñu ko xel ma day xellu lu amal njëriñ ñëpp yàlla gën koy xel ci jàmm yàlla ragal yàlla topp yàlla bàyyam fàgg ko ci yar ko ci taalibe mës ko may benn yoon fu mu yekkee nàkkam ci njub ak liggéey doom sëñ Bachir loolu doy nit la ko xam ne kii amoon na diine moom taalibe te liggéeykat loolu ñëpp xam nañ ko ci moom. soxna Saa Basiir moom sama digg moom day loo xam ne moom dañ ko suusul day jë day jëf yàlla suñu borom. jàng ci moom ak taalibe bi jàng ci moom ngor jàng ci moom diine jàng ci moom jom ak ko maandu si ako ko ragal yàlla ndax bis ma ànd ba bis bu tey bii may wax ci moom de mosuma xam ci moom len lenn lenn lu ak jub ku mat sëkk te am personnalité te diñ di nit ko amu fit te mën a jaamu yàlla te way ci pas-pas lañ ko ma sax xam ak dëggu ak bëgg Sëriñ Tuubaa goo xam ne yi dara desu ci yéenam ci lislaam itam rëy na yaatu na kon nag ku dib jullit ku naaj sa njort rafet na ci moom ku fonk lislaam la ku fonk alxuraan la it jëm fu ne bala bu dee xëy war faa jëm bala faa dem dina julli suba doo doo ko xëy te fu jullee suba ba dugg ci oto bi mu ngi ci alxuraan yi ba ba muy wàcc ku amuk taalibe ku bëgg sëriñ Tuubaa ku bëgg waajuram wa di Cheikh Amadou eh, mu yar ko jaarale ko fa mu ko jaarale Eh, mu doon koo xam ne eh, doxalin rafetoon na lool. ni ab sëriñu murit war a mel noonu dafa mel da ko judduwaale. li andi Cheikh Moussa Bachir yàlla melal ko ni mu ko melal. sëriñ Bachirou dafa takkoo ak sëriñ Touba. juróom-ñaari at yu mat sëkk. yoo xam ne jonjoo na ko ak sëriñ bi. ba tax na jëlee na ci sëñ Touba loo xam ni gannaaw bu mu doonee wéy juróom. taqoo ga sëriñ Bassirou am na ci cërub boppam boo xam ne kenn fekk ko ci. loolee nag wàcc si ba yàlla jox ko Cheikh Moussa Bassirou mu jaarale ko fa mu ko war a jaarale yar ko ni ko ci yoon yu ko sëriñ Touba tegoon mu jël mu Moussa Bassirou teg ko ca. def ci moom éducation bu wér waaye bi ci ëpp solo mooy xamal ko kuy sëñ Touba ak fa mu ko war a teg daf ko waxoon ne ko maa ngi lay dénk dénk boo xam ni loo ca mooy dana mel ni. naaju njolloor ñu di la ca doxloo te soloy dal ne ko bi ci jëkk feek maa ngi dund maay sa buntu ci Sëriñ Tuubaa nekk sa wasila bis boo ma noppee gis képp ku ñu wax ni moo mag ci njabootu seexal xadim jàppal ni jëmm jaafane bu dara dox sa digganteeg moom lu mu joxañ na ko dagg loolu la ko sëñ Bachirou dénkoon sëñ Moussa Bachirou nag remplir ko dox ko ba mat sëkk kon nag lépp loo xam ne lii kër sëñ Touba ngi fi doomi sëñ Touba yaa ngi fi suñ demee ci ndigal dañ leen di bëgg téye leen sagal leen lépp lu ñu bëgg ñu nekk jaa ñoom. sëriñ Basiiru bi muy wàccu liggéey waaye juróom bi sama bàyyi tàggoog moom ci néeg bi ba noppi ñëw ci saal bi di ko wax sëñ Cheikh Mbacke kenn faat na nee na sëñ Basiiru mi ngi toog ci wetu sëñ Cheikh nee na bi ma ko koy wax maa ngi xool xar kanam sëñ Moussa Basiiru booba bu soppi ko woon rek ma xam ne li fi Basiiru bàyyi. dana booy dëgër gu mel noonu la sëñ Moustapha def tasaare ci tasaare ci mboolem ñi mu yàq muhammadan bi nasmin wa nasrin wa huwa nimasatu busuri kitaabullahi wa sunnatullahi ya ahtami amana ak def la ma yàlla xëy nag ci eh, bëgg a génn jàngi te moom dong laa ci yaakaar ndax te xaw ma woon ne dina mën a bàyyi déet ma am benn bi ci bustaan ma am bis nag wax ak moom ba may wax ak moom it xaw ma woon la ma ci bëgg danaa ko am déet ma xamal ko ne ko fi mu toll nii eh, gisuma ci ko bëgguma dara daal dul jàngi loolu daal moom rek laa bëgg moom si mën a dimbali te booba yé yéewat naa ko ba nga xam ne booba lépp booba lépp maa ko maa ko maa ko maa ko ak muy tiis la moom naqari moo xam ne sonn ci loolu moo xam ne booba bàyyi ko gannaaw sax dem booba yitte ji dama ëpp doole rek waaye booba bàyyi ko gannaaw di dama métti na ma lool waaye yàlla def muy mbirum yàlla mu yàlla dogal rek bi ma ci waxtaan ak moom moom mu mu mu daal di mu ko woyofal toyyu am ci yaakaar bu baax daal di mu ci ànd daal ci ànd ak man laa ko bàyyi yàlla def am si bett mu ànd si ak lool moom mel leen daal kon loolu ko lépp am naa ko. Eh, rakam nag moom la la la la ko la ko bàyyam defoon rek nga mu taxaw ci moom. ci te ne fi mu sëñ mu sëñ si Cheikh Sofane mu saban coom dërëm mu sëñ mu sa si Cheikh Sofane mu sëñ Mountakha mi fi nekk tey ak sëñ Abdou Akim ñoom ku ci nekk boo nekkee fi bërëb suñu saa wala téléphone lay suma sama xanaa toog ci bu mag boobu ko yàlla joxoon te dund ko ànd ko mboolem ku nga xam ne xam na ko itam ànd ak moom dund ci loolu lépp lu jëm ci Eh, liggéeyal sëñ Touba ñor ko lépp lu mu daan def loolu rek la ndax léppam Cheikh Amadou Bachir la ko joxoon liñ ko xàmmee lépp nag mooy nangoo liggéey organisation liggéey nee nax doom yi man ne fi fii ñu toll néew néew bi nga xamante ni ñu ngi war a jàngale jikkoom ak i meloom amatul jotam amatul wéram waaye nee nag moom mii kat lu bari jàngal na ko ko ci nee moom kat lu ko sëriñ Bassirou jàngaloon jàngal na ko seen i baay nee na it ànd nañ ceeg moom bu baax a baax nee lu lépp loo xam ne lii sant nañ ko duñ ca bàyyi lu ñu xam moo leen ko xamal nee na bëggatoo ñoo xam dara yëpp sëriñ bi xamut lu mu leen xamalut man ngaa programme sëñ Moussa heure bii bu ma demee net dana fekk muy jàng alxuraan heure bii mi ngi ci doggi xaside ya heure yi ma ngi ci ahsaab ya heure yi ma ngi ci wirdi ya heure bii génn na ci mbooloo ma bi bii na di dallu heure bii mi ngi wax ak njabootam di xool nos mbiram. sëñ Moustapha man su ma ko bëggee def champion ci olympique yoonu murit mooy kilifteef champion ku jiitu jiitu ku war a topp topp carte d'identité boo ko mën a jox ci àdduna booboo ko gën a te booba it day nga xam ne ëpp lu mu jëriñ te ko nangu gee topp joxoon na ko cër boo xam ne fu mu teewal yoonu murit sag ba mat sëkk muy taalibe mu ñàkk taalibe defe na ne lim la wax nekk ci moom moo nekk ci yow noonu la mel. sëñ Moustapha nag dañu koo xam ne kii dafa naqaree xam ndax fi mu jaar fépp dafa neexut a nett ci kóllóore ak bokk ci jàpp te lépp moo ma jàpp jàpp boppam. xam nga diine xam nga jamono ak xam nga boppam matoon na sëkk. ni mu juddoo ganee ko addina ba ni mu demee xuus na ci adduna ba génn te dara tax ko dafa set wecc. ci lépp loolu rek nag mooy li ma ci gën a yéem mooy lëgg-lëgg bu adduna boobu mu xuus dugg ci adduna xuus ko ba jàll te dara dara gàkkalu ko loolu rek man moo laa ci am lu ci yem lu ma <laughs> lu mu nekk lu ne organiser ko itam gënee ndax nit ku yàlla mayoon eh, mën naa ne sax perfectionniste lu ne lu dugg lu ne la ca gën lay wut résultat ba li tubaab wax ne un homme avisé ku xam jamono mooy Serigne Moustapha ba sujet boo ko mos a wax dana lii tegal suuf wala defal. liggéey ak jaamu yàlla daal ak jàpp suñu jaamu moom xamoon naa ko ci moom ak tam nag dimbali bindee fi ndax fii kat dimbali daanaka gannaaw ne li mu fi mu si def kenn xam nu mu toll. dégg na mbir yi te xam ko doon na koo xam ne it ku am engagement la ku dëgër. neenoon na ko xam ku mën kuy dégloo kuy dégloo la lu mu war a def loone xam na ko te dana ko def lu mu wërta def it xam na ko te ko def muy koo xam ne dafa am qualité yoo xam ne bu bokkutoon fi mu bokk sax ku ko am mata waxtaane waxuma laa fi mu bokk li ëpp ci nit mooy kilifa gu jub jub baax tabe xam boppam te fonk yàlla yaaram nitu yàlla liggéeykat yàlla may ko xolu yërmande may ko xam-xam ci lislaam may ko xam-xam ci àddina zahir ak baatin baatinu axi baaba sëriñ ba sirul toll na ci diggante Cheikh Mahamadou Fadil moo fi nekk xam naa doxinu àdduna tax mu bëgg a noppal sëriñ ba sirul ci lépp sàmm sàmm di ko sàmm itam ba dara bañ a agsi ci moom du ci biir du ci bitti moom moom moo doon yitteem booba wax jeeg jëf jeeg melokaan weeg doxin weeg jëflante yi yëpp ndoo mën a am looy xebat ci moom ku mel noon nag damay jàpp ne kon mooy ci ni ma ko jànge mooy mooy jullit bi nga xam ne moom la lislaam soxla bi nga xamee nag sëñ Basiru wàcc na sëñ Moustapha ci ak maam ñor gu sëñ Basiru ñor ak doxinam ngir da daan wax ne lu ma roy ci sëñ Basiru rek ci sëñ Touba la ko roy ndax dafa yaroo ci biir kër sëñ Touba. ku fi nekkal sëriñ bi bu bu nee fi yow loo koy liggéeyloo day takkook laxasaay ci ndiggam du sol mbaxana du soxla sol dal loolu gis naa ko seere naa ko waaw man daal taalibe laa xam ci moom bëgg sëriñ bi xaw ma leneen lu mu bëgg lu sëriñ bi. sëñ bi du yànn ko ko mu tudd <laughs> nee na moo tax bi ma ko noppee gis rek. bañ demee ba ñaanal ba noppi rek laa daal di xëy dem joxe sëñ Fallu saa bopp daal di eh, jaar sama mag sëñ ci nijaayam tàgg ko daal ko ko daal di daal di ñëw nag kon ci loolu la mus musta jóg ci jóg ci taalibe googu ba sëñ Fallu mujj na lu muy def lu njaay dem rek ci ndiggante soosu moom la koy dénk. Cheikh Abdoul Ahad doyloo ko ci fànn yëpp jël baatam ak yoon wi ak màggal gi yëpp teg ko ci loxoom. lépp moo ko daan doxal su màggalu Touba ma jub daf daan wax ni taalib yi nga xam ne dañ may siyaare nañ ma féexal ba màggal gi jàll ndax ndigalul sëriñ bi du ko boole lenn. mu teg ci loo xam ne lii itam mu di kër gii nga xam ne mooy buntu jumaa ji di kër sëñ Bassirou. yàlla dogal moom bi ñuy miir kër sëñ Basiiru bi ñuy miir daaru ak ak terrasse yi ak yëpp maay kilifa dongo yi foofu laa ko doon miire néeg benn néeg a fa neen ma di ci xamaan mu xëy joxe ko lanu daloon ca màggal ga dalaanu nun ñi nga xam ne sun sun sun sun sun xel yaatuwut amuñu gis-gis ndax kër gi ni mu deme ak fi mu am ak ni mu placé ko am néegi di ko jox di ko joxe ñi ko ñi ko xajoo bëriwul. sëriñ Abdoulaye mii bi nga xamee ne sëñ baa ngi jébbale si sasu jumaa ji ba sëñ mu di waaj a ñëw sëñ Abdoulaye daf mu mag dafa jox sëñ Abdoulaye mii mbubb ak kaala ne ko kaala gi mën nga koo def ci sa baat waaye bu sa baay de ñëw nan ko kaalawoo. ndax wóor na ma ne ak laxasaay la fi indi bañ defee noonu ba oto yi départ ba ñu ñëw sëñ Ablaat mii tey fob kaala gi laxas ko ci ndigg bi sëñ Ablaat toogee ci banc bi canapé banc photo yi bi nga xam ne ci la ko sëñ mu saawar a fekk daa toog ba mu yàgg mu ne ko Abdoulaye sa baay day neexatu la toogal ci kaw muy toog ci suuf daal ne ko sa baay day wàcc waayu doomi sëñ Tuubaa la daal di wàcc banc bi toog ci suuf moom sëñ Ablaat bi sëñ Moussa ne yulub ba ba ne sëlëb ci buntu néeg rek dafa daal di sukk di raam wut si sëñ Ablaat sëñ di ko xool naa ci man de xawma nu may fu ma ak ba yegg si ci moom daal di koy nuyu jëbbal ko addiye ji ne ko lii tey bëriwut ñeent fukki million yu teg la waaye soo ko laajoon ci roo danaa ko indi te sama roo ciy jiitu ak ñi aju ci man sëñ Ablaat teg loxoom tekki ba ne ko sëñ Moustapha mu ne ko mbàkk mu ne ko dara jëru jëf day sëtaxal wax daanaka waaye na nga xam ne yowmal xiyaamati lakk ba sëriñ tubaa dana toog sëñ basiru toog ma séeréer sa jëf teg seen blaat fa la tudd doomu yëpp dafa boole jàpp ñépp te topp kenn topp koo xam ne nag jox ko biir bàyyi biti jox ko bi biti bàyyi biir da ko jox biiram ak bitim saa yaram ak batinam moom lépp moo ko yor man naa leen ci jox firnde ci saa bopp tey waat na ci yàlla ne fii ma toog wérul ci daan wérul xaajir wenn weer wu leen màgg amul waaye muñ ci jëloon tey jii bu may dem xam ne sëñ fekk naa ko ba tàyyi ngan googu sëñ Abdul Xaadir waaye ñoom ñëpp maase ëmbal ko ak cofeel ak ngërëm loo xam ne man dama ci am lu wér ko tàmbalee ci ñi ma xamagoon ñu tase moom sëñ Abdul Ahad ba ci sëñ Moustapha taalibe yi nag sëriñ bi li mu leen di dénk li muy dénk moo di sax ci jaamu yàlla sunnatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te fonk liggéey bu baax te boole seen bopp te waral seen te wéral seenu gëm te am listiqaam mooy sax ci jub nee na yàlla nañu suñu borom boole dimbali amin yaa rabbal alamin nee na Cheikh Moussa am ni sëñ Basiru mi nag ne lépp loo ne lépp loo xam ne moo daa dox digganteem ak président ak gouvernement bi na ko sëriñ bi Abdoulaye defoon ne wéyal na ko wasilatu sarmadam wa fil xalbi minni min ilaa yéen bokki taalibeem yi. maa ngi leen di nuyu na mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp. rawatina xam ne. ne rawatina ñi nga xam ne. seen baay wala seen maam sëñ Bamba ko seexaloon. ñi nga xam ne seen baay wala seen maam sëñ Bamba ko seexaloon. ñoom ñëpp ñooñu ñëpp ñu ci bari daje nañu fi. danañ lim lim sax seen tur. ñu ràññee leen bu baax ndax bëgg ñu ràññee leen bu baax a baax. ñu xam ne ñoo ñi nga xam ne seex yi nga xam ne ñoo téye yoon wi. ñuy seex yi nga xam ne ñoo kenn yoon wi. ginnaaw doomu sëriñ bi. ne ginnaaw doomu sëriñ bi. ginnaaw rakkam yi. ginnaaw yi. ginnaaw doomu taaw yi. ginnaaw taaw yi. ginnaaw seeni rek. ginnaaw seeni rek. ñooñu ñëpp. nee na ñooñu ñëpp. boole suñu bopp. nee boole nañ suñu bopp. takkoo yéen a yeesal sunu njëbbal. parce que yéen a yeesal sunu njëbbal. ci Cheikh Abdoul Khadir ibnu Cheikhul Khadim. daañu ne. daan nañu lim timi tur yi nga xam ne. ñëpp joxe seen bopp tey. te xat-xat bi mayu leen ñu mën a teew ba yegg ba ba def ko itam. ne nga xam ne jot nañ sëñ bi ba def ko ñu ngi koy yeesalaat ci kanam mbooloo mi. ñu ngi koy yeesalaat ci kanam mbooloo mi. loolu loolu nag déglu nañ ko déglu. ku déggul turam. ku dégg turam ku dégg turam. xam ne kon. xam sa njëbal àgg na. xam ne kon sa njëbal àgg na. la nga doon yeesal àgg na. am nay seere itam. am nay seere itam. say taalibe danañ ko dégg. say danañ ko dégg. say bokk danañ ko dégg. say xarit danañ ko dégg. ne yoon wi nag. nanu góor ba li nga xam ne. ba li nga xam ne. yàlla mayoon na ko sëñ Bamba. yàlla mayoon na ko sëñ Bamba. may ko ay magam moom mii. nu fas yéene. ndam lu ëpp loola. def ndam lu ëpp loola. ba ñu xam ne. ba ñu xam ne lim fi fekk. yokk na ko. yokk na a def noonu. ne loola nag noonu noo ko war a def. moom. moom na mu war a mel mel na ni. nun noo ci des. ci des. nan fa si yéen takku. nan fa si yéen takku. te liggéey. te liggéey. dégg ndigalam. te dégg ndigalam. te jaamu yàlla ni mu ko waxee. te jaamu yàlla ko waxee. te fa si yéene lu mu digle. nu def ko na mu ko bëggee. ne loolu moo ñu jëme kanam. حين يسير على سيد الفاروق من ربه رضا كما حسب وهو bokk yi seet jëmm yi nga xam ne bu ko xalifaab Sëñ Tuubaa woowee du dox du waaxu waaye day ñukk aw xelam ñëw ne groupe sukk ci kanamam kooku mooy Serigne Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir xool leen ko moom ak Serigne Saliou lii exemple boo xam ne ñun taalibe bi yëpp war nañ cee roy nekk ci ginnaaw sëriñ bi lu mu digal ba ci sëñ Mor mi nga xam ne xam ci moom lu jafe xam ci moom dara lu jafe la sax xam naa pas-pas bi mu ko nangul ak fi mu ko teg te loolu sëñ Moussa ko jëf. Azhar gii ngay gis liggéey ndaam gi moom la ko jëkk doon liggéeyloo boobu maa nga fa man mii la daan yónni demal mi bi ma sëñ Murtala nangam di laaj ci def di laaj ba léegi maa ngi kii Mbacke Ndiaye tal bi suñu loo xam ne daa tabaxkat la bu nekkoon bu mag la woon bu nekkoon moom la jëloon nga xam ne maanaam moom da cee dem ba waa kër gi la delloo lépp itam waaye nag moo yore seeral ndaam ndaam gi lañ fi dëkk liggéey ci ci la ko yàlla ci loxoom la ko yàlla jaarale waaw ah, yooyu yëpp eh, la ko waral fonke la ak taalibe ak dëggu rek nag te loolu ci loolu ci lañ ko xam ba bëgg bëgg sëtiñ ko. ñoom ñëpp dafa farlu woon ci ñoom ba ci Cheikh Mouhamadou Mourtada gis nga ni ko daa fekk say waxtu wu nekk te bu ñëwee gis nga nam cey sonne. gis ngeen na positif bi mu ci am bi mu ciy am. doomi Serigne Touba ju fi ne. ngeen ñëpp waa kër Serigne Basirou. ka ca fi seen kanam. liggéeyal Serigne Touba. di dem ci Serigne Touba. di del si fii yéen di leen wax ndigal Serigne Touba. ngeen ànd ak moom di ko def. Cheikh Abdoul Ahad woo na ko Touba beral ay ngan ay yoonu yoonu yoon. bañ na ko ba digg moom àgg digg ak moom àgg na foo xam ne tey jii néeg néeg bi mu wàcc liggéey ci Touba Belel sëñ Moussa Bassirou ko liggéey daf ko daf ko jëloon ber ko ca biir buy jàng alxuraan fa lay nekk buy defi xasaay itam fa nekk bis bi muy wàcc liggéey bi muy jóge ci neex see neex seex muru badal bi di ci neex sëñ Moussa Bassirou bi mu ngi yëkkati xasaay ca kaw te ba àggee ci neex sëñ Moussa Bassirou fa la waajee ngir wujji borom tabaraka taala te lu fa nekk sëñ Moussa Bassirou ko fa def kër sëñ Bassirou ak kër Serigne Fall gi moom li leen boole mooy jëriñu njëkk njëkk yi rek mooy Serigne Serigne Bassir xam nga lépp ci eh, lu doon xam ci Serigne Fall kat bu di Serigne Bassir du ko xam ndax lam lam ñemee laaj bàyyam seero Serigne Mourou Moussa jaay na njuréem ba du ko laaj Serigne Mortala jaay na njuréem ba du ko laaj Serigne Blaye Fall dara jaay na njuréem du laaj Serigne Assane Fall doom mi ngi tam ñëpp ku ne jaay nga la nga fexoon moom julli julli ko li ne fi moom doo laaj mukk lu tax ngay def nangam wala noo defoo nangam loolu du ko laaj loolu lépp nag jàmbaar ju yi nga xam ne moom la biir laaj ko bàyyam seera ba ba mu leeral ko kon bari na lu waaye xam coono kat te Cheikh Mamadou Bassir moo la baaxee ndax moo ko laaj bàyyam seera mi sos yoon wi ba nga mën caa doxee ci hectare ndax gëmug Serigne Touba am ni mu ko mën a méngaleel moo di Cheikh bi Fall mi nga xam ne mooy royuwaay bi nga xam ne moom la ñu xam ne moo gën a gëm Serigne Touba ci nit ñi mbubb yi sol la ñu wuute waaye xool bi moom benn lañ ci nee noonu la gëmee Serigne Touba nee tax na kon nag ku koy roy na nga jiital ak taalibe ci sa bopp sunu kër gi. ne waxoon na ne nañ leen def Baye Fall yi kër Serigne Touba Baye Fall yi kër Cheikh Ibra da ngeen a bokkul mbubb waaye yéen a bokku bëgg yéen a bokku jublu yéen a bokkit ak gëm. monsieur Moussa monsieur Amadou ne keneen ñëw jëlee te yaakaar ne Serigne Touba mbala mu ne mii am na loo xam jël ko Cheikh Mourou Sa loo xam bu la laajee mën ngaa wax ci moom bokk na ci benn nag loo xam ne des koy beral muy tur wi nga xam ne moom ñëpp koy waxaan léegi nag muy Sëñ Tuubaa ba noppi teg ci nag kam doon ndax loolu bàyyi woon ko ci xel xam nga jëri Sëñ Tuubaa ji di Cheikh Mourou Sa ku ne xam ne ni mat na kam wóotu woon ko waa matal kon xam nañ sëñ Tuubaa rek ba tey waaye ndi ko wooyee Cheikh Mourou Moussa rek bi Cheikh Mourou Fall ñëwee ah kon na xam nañ ni lan bëggoon sëñ Tuubaa lépp ma nga ca moom lan bëggoon ca magam jëm wóotu Cheikh Mourou Moussa ma nga ca moom waaye mu tudd nag si am faaral nag tur tur wooyee na ko nag waaye bi sëñ Tuubaa bu la toogee nag mu wax tur woo nag sëñ Tuubaa wan fi si Abdoulaye Mbacké loolu loolu ñu bari réew na ko ci sëñ tuba sëñ Abdoulaye sëñ sëñ Touba na nga moo ko fi wax baatu askana la ci ci ci ci waajuru góor it ci moom la tàmbalee daanaka ndax ñu jigéen yëpp moom sax bët jaxat lañ daan waaye moo ko moo fi dindi ngir ngir ngir njàngaleem la njàngaleem la ci yoon murid dem na bu daj loolu loolu moom yàlla ko yàlla yàlla yàlla ko yàlla ab la yàlla ko jël loolu loolu rek la Cheikh Mouhamadou Moustapha Basir murid saadix ndax murid saadix bi ko teg mooy te Cheikh Mouhamadou moo ko yar te Cheikh Mouhamadou Basir kenn xam ne Sëñ Tuubaa moo ko yar jukk yi Sëñ Tuubaa defal ci Cheikh Mouhamadou Basir yëpp ak calme ak nangoo liggéey bi yëpp Cheikh Mouhamadou Basir def na ko ci kon nag nag nun nan fonk bis yi mu fonkoon mooy bisub màggalu Poroxaan ak guddi gàmmu njaareem ak màggal gi nga xam ne ñëpp noo ko bokk boo waaye boo xam ne nanu ko loolu nee na moom la ñu mujjee keroog mu ñaandi ci moom nee lam leen doon wax itam mooy seen tàmbali bii yéen ne yéen nee na nag yéen ñu ko tàmbali li nga xam ne xamu leen ko woon ci sëriñ Basiiru mu di leen ko jàngal ba ëllëg gi si biir bu ngeen fi desee yéen doomu fekk xam ngeen ci moom lu bari. benn doomu sëñ Touba bu mas a gis mbaxana sëñ Moustapha. wala dallu sëñ Moustapha musta am kuy kilifaam boo ko moo ko ñaari fan sax bu la siine bu ñu diwee nuyoo rek bu sumi na mbaxana mi dafa tànk den te sa yow ci bitti te kooku tax mu koy def mën na ko bañ gis bu dee sur le waaye teewul sëñ Tuubaa gi lay delloo jukkal gis sa kilifa jub ko rek sànni sa mbaxana sukk say batuwam ci suuf sama kaas yëpp ci naa ne ci moom ko jàng yi nga ne fixé la woon buñ ne kar ñun ko sëñ Abdou lay woo day wàcc fauteuil bi toog fi suuf banque ñaari tànkam summi mbaxanaam wuyu ko wax moom ba noppi door a jógaat toog fam doon toog jën doomi Serigne Touba ju mas gis mbaxanaam amul kenn xamuñu mbaxanaam sëñ Moussa Anam mel mboolem doomi sëñ Tuubaa yi ak mboolem ñi nga xam ne magee nañ ko dara lu néew néew rek ci ci sëñ bi fu ñu daje rek dana leeral xam ba ñëpp xam ne ñooñu ay kilifa lañ ci moom. nun noo koy sant baax ngir sas na nun ñëpp kët kenn gisatu la nga nee ngir Cheikh Moustapha ni mu def kenn gisatu li nga nee ngir Cheikh Moustapha ni nga def sëti sëñ Tuubaa doomi sëñ Tuubaa fii say yëpp. Cheikh Moustapha Sall ne leen bu Cheikh Amadou doon ba Cheikh Amadou Cheikh Amadou Bachir noonu ñokket sëñ Tuubaa ne ñokket du soppi dara. ne ko bu Cheikh Amadou Bachir noonu ñokk sëñ Tuubaa ne ñokket mbàkk yow mooy wàl batu koo soppi ko yow doo soppi ko dara sa yoonu maam yére yi yokk nga ko baax ndax ñun ñëpp a doxee doxal nga taali bi boo xam ne nangu nañ yoon waree te tegu na caaw na sa war na ko war na ko coono bi mu nar a sonn ci ci taalibeem ak mbokkam du mësu ko benn sëriñ mu ko nangu ko sonn ci ay taalibeem kooku mu amu ci woon morom. ñu bokk ci sëñ Tuubaa ñëpp rafet lañ aw doxinam rafet lu it dem yare ak njabootam ci ak taalibe ba nga xam ne ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi dox sëñ Abdou Xaadir daana wax daan sëñ Moussa Bassir am nag taalibe ci wéet ak ci wéetali ko loolu joxe na lool. yàlla na baaxee. dañuy ñëw ci ay bisu Maam Fallu nga dafa mànd moom ci oto bu ko alañ ñu koy joxoon joo koy joxoon moo am na ñëw ci buntu ko buntu ko xeeb laat boobu Amadou Karim Gueye mooy ministre des forces armées moom la Madi Soxo yabal Madi Soxo mooy wut si moom ci réew mi boobu dafa prestation surtout na tukki yaa doon na bi sëñ Abdoulaye jëlee kaddu daa tënkoon ni muy liggéeyee ci yoon wi xam le ne yoon yi moo fi nekk bokk yi ak Tuubaa ci boppam ak diggante ak taalibe yi ak diggante ak waa waa góor loolu nag mu seetlu ko ay cër waaye lu aj ci biir Touba dama ko dénk sëñ Cheikh dama ko dénk sëñ Modou sëñ Modou Bousso lu aj ci jumaa ji dama ko dénk sëñ Cheikh sëñ Cheikh Fatma dama diggante waa góor sëñ Cheikh Bousso laa fi laa fi doxale maag taalibe yi nag doxalewuma fi kenn maa ñoom rek ñi ma lim nag moom suñu daal mooy wax de ñi ma lim nag ku si ñëw fi man dama wax leneen lu lu lu noonu ci ñoom na nga xam ne neexuma ca dégluwuma la bu wa bu dee ci tab tab sama nopp it naa xam ne mere naa la loolu tënk ay kàddoom moom lañu daal yàlla baax ma it bañ jógee ci jotaay ba ànd maa ngi fi mu saa boobu daal mi ci baraag boobu fi ñu fi ñu si bàyyoon ci këram. daan na ko noo dégg wax ji ñu ko lépp rafet te jub mbokk waaye man nag sama piir de moom moo ci moo ci jaaxal mu ne ko ah mu ne ko sëñ Mourou jigéen la fi doxale woon dañu farlu daam daraame la fi doxale woon man nag ginnaaw foofu foofu foofu daa tabbi nanga ma wax daa ko def waaye dama la ñaan nag tari bi yi nga xam ne kenn du ko si diggante ñoom taalibe bi moo ci moo ci kenn jiitu parce que naa yéen doxal lii nga sant waaye lee parce que naa yéen kenn du ma ci mën man tax dëgg ko te yàqu ko ma ko doxale woon daal taalibe moo ko ñor yéen ñi nga xam ne yéen sama rek ak waa dërëm même gépp maa ngi leen ñaan ñu suubu yoon yoon taalibe bi góor na ca noom mañ ko wàcc Serigne Moustapha ak niti diine yi nga xam ne ñoom la fi fekk kenn ku nekk ci ñoom dafa am nu la sëñ Moustapha jàppe woon yow itam nga am noo ko jàppe dafa bari lu mu dox lu rafetal diggante ñépp ci ay bokk bari na diggante bu mu dox ba diggante ba rafet te kenn xamul ni moo ko dox mësu ko tiitaroo bu la xasee jàpp ni tamit amul jàpp joxe lii bàyyi lii dalay jàpp bu wér man nitam lool mën a defarug bokk lool di puso buy ñëw ci yoon wi ak ci bokk bi ni ko bàyyi meloon sëñ Basiiru kii da ko waxoon ne ko loolu ñuy tabaxee ta tañ ko tuddee maaluj ab turil loolu la digal yow siiru nga di ko def ci yoon wi moo gis foo siinu fett fett rek noonu maçon yi def demal demal dara <laughs> loolu loolu suñu salaagu dégg waaw euh, loolu kon loolu loolu loolu mu ne loolu muy liggéey suñ Basiiru loo tax ñu nit luy taxawal yoon wi rek ak luy tax dara du ci mejj moo war doon suñu liggéey. kan mooy Cheikh Mamadou Moustapha ci fonk diine ak fonk sharia waaye xaqiqa moom buñ la nee Cheikh Mamadou Moustapha sa du njëkk a dem ci lu dul moom xaqiqa bi mooy bëgg Sëriñ Tuubaa ak taalibe gi ak fonk kilifa gi ak wamatu gi loolu moom da caa nekk ci kaw ñëpp comme bii ñu nekk muy. Touba Kaolack bari na ci gone yoo xam ne yi seen fonk lislaam tax na fajar sax ci jumaa ji lañ koy julee si waxuma laa nag yeneen yeneen waxtu yi leen fiy fekk nga xam ne loolu lépp ab liggéeyam la ñun ñi nga xam ne nun la samp ngir ñu liggéeyal ko liggéey boobu ci lislaam mu def na noo xam ne taxoon na mënatu na miin keneen ku dul moom ànd ak ñun nag ci pas-pasam bu bu boobu ak farlam googu ak yitteem ju koy jooju nga xam ne lu ci waay xër xër da ciy daw ci gannaawam te du ko ci mën a jot waaye mu dimbali woon ban ànd ak moom ca loola dimbali taale bi yëpp yëpp yëpp ñi nga xam ne ñoo aju ko Cheikh Mamadou Bachir ak ñi nga xam ne nii nangu nañ ak royukaayam ak nekkam royuteef dimbali leen ca yoon woowu ñu di ko doxee xam ne ay jullit lañu ay murid lañu fonk lislaam lool fonk ak taalibe bi lool di dox ci sharia di dox ci xaqiqa bi ma dëkkee Baobab euh, ma toog bés ñu ni ma sëñ Moustapha Bachir ne nga wuy si ko Colobane mu jóg jaaruma sax ci sëñ Cheikh pour wax ko ko parce que xam naa ni farata la may doy ma dem ñu toog ci salle bi tuuti mu ni ma agsil ci néeg bi ma agsi ci néeg bi mu woo sëñ Muntaqa sëñ Muntaqa ñëw mu ni ko tàllal sa loxo mu tàllal loxoom mu ni ma jëlal sa loxo nga teg ko ci loxo sëñ Muntaqa ngeen fasante kóllëre mu ni ma ndax fi nga féete sëñ Cheikh la ma féete waaw tabaarakallaahu <laughs> loolu maag sëñ Muntaqa ñu seq ko te sëñ Moustapha Bachir moo ko moo ubbi yoon wa moom bi mu dikkee dafa wéyal la Cheikh Mouhamadou Bassirou waxoon ndax Cheikh Mouhamadou Bassirou dañoo wax ne dafa wax waa ka waa fii Touba Gallas ñu ne leen dee leen ji fële ca Mérina ajjuma nga xam ne kon mi ngi bàyyi xel li lislaam wax ne bu fekkee ne jumaa am na fi te jumaa jooju ëpp gudd waa dëkk bi jan la war a doon doon seen wëllëre nga xam ne Baye Mbaye Jenn mi nekkoon fii nee ma Cheikh saa su Cheikh Mouhamadou Bassir ñëwee fii benn fan wala ñaari fan nga gis fii Cheikh Ibrahima Niass noonu la meloon nag waa Léona muy waa kër Khalifa Niass noonu la meloon nag waa Kaneen noonu la meloon nag mboolem kilifa yi nekk ci dëkk bi loolee nag ba Cheikh Mouhamadou Moustapha dikkee dontelee moom amul jot gi Cheikh Mouhamadou Bassir amoon ba di fi yàggee nam fi daan yàggee waaye mi ngi jàpp jàppaloo ko ñu fi bàyyi. dafa bëgg mbokk bëgg bëgg nitu boppam bëgg bëgg lu aju ci moom lépp moom kooku mbiram la mbokk moom ni mu fi wal ma li mu bëgg ci mbokk moom nee ko nee ko dab ku fonk mbokk la waaw ku fonk dëgg la it nag waaw waaw ku jub la it ci wàllu gépp nag di di santaane jub waxtu bu nekk fu mu toll maanaam maanaam bu dee ci wàllu wàllu wàllu liggéey noonu la ci meloon la ci ma woon moom mu jëkk lebal itam lii ma la wax bon nag jàngal nañu liggéey sama kër itam moo ko taxawal bi ma bi ma téye nag ba noppi ci man ne ma nag léegi da nga sancal ma njote njote gee suñ suñ Moustapha sancal ma foofu man nga sama yaay nga foon sama yaay fara nekk waaye suñ Moustapha moom moo moo ma sancal foofu moo daje moo moo woo suñu Ousseynou Diegane ak ñoom gaje ga ñoom ñii sëriñ gaje ga ñoom ñii ñu doon ñu jóge dara mu ne la woon dem di ñëw ci lëkkëy ba c'était 1975 74 75 sañ sañ sañ sañcal ma ne ma ne ma nag wutul ma itam soxna doomi sañ sama nijaay moo moo ko topp lépp amul lenn lu ma jot ne nga ñëw daal nawet jot mu lebal ma ne ma dama jox ma fukki bëri ngay xott ne ma dama la koo lebal at moom yàlla dogale tam ma ma ma ci mu nangu lool am naa ci téeméer bëri ak ñett taal sama wut samay saret sam ñu yóbbu ko daal ma fay mbay faal waaw loolu ci laay waxtu martulaa dama koy wax dama su bay moo ma dugal ci mbay ndax man ñun duñu ay béykat waaye fi ne dama tam dama ci doxee di béykat rek Sëriñ Abdul Aziz Al Amin mii fi jóge sëñ Moustapha Bachir daf daan wax ni mooy sama secrétaire mooy sama chef protocole sunu nganu Touba ga yëpp dafa jël yëpp teg ko ci loxo Serigne Abdou ni ko seetal noo ko organisé. Serigne Moustapha Bachir mu ngi ko gërëm ndax lu nekk def na ko ci àdduna ba xamatul lu muy def kon nag yal na ko seen barke dal yal na ko barke mag ñi dal fa tabaarakallaahu matal na ak bokk yal na yàlla matal ak bokk ci moom. sëriñ seex ñëw Touba gan si Cheikh Abdou Lahad ñett ñetti fan yooyu ngan nga géppit ci loxoom la ko seex Abdou Lahad tegoon woo sëti sëriñ Touba yi nga xam ne ay rakkam lañ boole kook ñoom ni leen taxawul leen ma mu taxaw ko ba ma sëkk ci karo ca tàgg Cheikh Abdou Lahad dafa dal dafa wax ci làmmiñam su may tàmbali ay wax mooy sëriñ Moustapha Bassirou lu baax lu baax li nga wax ci moom moom laa lay gën a dëgëral ngir boo gisee muy sama loxol ndeyjoor di sama loxol càmmoñ ci yitteem la ak taxawaayam ak pastéefam ñi fi nekk yëpp ay ay rakkam lañu ñi tees di ay baayam waaye féete na ma ci wet boo xam ne eh, ak ak nangoom moo tax mu féete ba ba tax na kon bala maa tàmbali benn waxtaan ngërëm lu nga ko gërëm moom laa lay jëkk a seereel ngir yow ñu jëflantee gulaa man lenn loo xam ne du ci moom la jaar li ci ci man sa dikk bi itam waxtaan ak yeeg ñëw moom ma féete ci sa wet gi ñu ma féete ci wet ma wax ni rek moom sëñ Moussa Bachir dafa nañu tase Touba bu ko defee ma dem yendoo góor gi sëñ waxtaan ak moom li ma sëñ Cheikh yónni tabaarakallaahu sëñ Moustapha Bachir wax ca la mu cay wax tabaarakallaahu ñëpp nekk ci jàmm. sëñ Cheikh moo ma ne woon fu la mu sëñ Moustapha Bachir soxla bu ma tàggu waaye demal nga wuy ko mu ne ma ndax ku ku mën a dox lu rafet la. man de mën naa seede ni nit mosul dem këram seeti ko posé ko problème génn am déception man mën naa ko seede man. bu ma mësaan dem itam poroxaan daf may wax ni noppalul ba guddi mu ni ma ndax ay bokk guddi la ñuy waxtaan bu ma demee ba nit ñëpp tëdd mu yónni Bachirou Babou waaw. mooy ñëw jël simba ma dem rek waxtaan ak moom ci guddi maa ngi fàttaliku ndeysaan guddi gi nu mujjee waxtaan maak moom ak sëñ den Mbàkke ñoo ko bokk fa lañu toog di waxtaan ba trois heures du matin wallahi ci ci lu baax waaw moom sëñ Moustapha Bachir xamul lu dul lu baax xam nga waxtaanu guddi boo xam ni yow ki nga koy waxtaanal daanaka yéen ñaar rek yéen a koy dégg la cay génn ak la nga xam ne lii jële na ko ci wéy juram man toujours dama koy cité dama koy cité ah dañuy waxtaan moom sëñ Moussa Bachir mu ni ma sa bàyyi sëñ Bachir day nee na am na koo xam ne dee su ko dénk ay bóot mu ki nga xam ni bu xiifee ñaxtu bu reggee bajantu nee na kenn du ko dénk ay bóot waaw ndax mboot yoo ko dénk bu xiifee gis ku ko leel la ko waxoon mu wax ko ko wallahi lii dama koy nettali ci kóosëri yi may def man leen ci moom laa ko jële mu jële ko ci way juróom sëñ Bachir noonu mu ko doon defee Tiwaawoon noonu la ko defee Njaasaan noonu la ko defee Laayeen noonu la ko daan defee Tayba Ñaseen noonu la ko defe itam Medina Baay bëggoon na réew mi bàyyi réew mi xel ba képp koo xam ne yaa ngi Sénégal am fi benn rôle buñ la jox nga di ko joué sëñ Moustapha bàyyi woon na la xel. te ngoon daan waxtaan ak moom waxtaan yu xóot yoo xam ne kenn du ko fekkee laaj ko lii ak lii lan nga ci xalaat te loo xam ne du affaire marabu sax. affaire réew mi la. dinañ wax dinañ waxtaan ci wolof. wax naa wax naa leen ko. moom état mosu ko kii ci lenn du am d'affaires yi du nit diine yi du kër diine yenn ñëpp na amaloon jàmm. te ku ne am nga wekk goo ko wekk. politiquement mos na neutre ci leen ndax toujours day engagé ndax dëgg la lay woon dëgg lay ànd ak yow dëgg la lay woon dëgg la lay jaarloo. Serigne Moustapha moom li ñu ne diplomate. moo doon un vrai diplomate. xam nga luy mooy ubbiku ba eh, ñi jiite réew mi wóolu la na ñem mën la dénk seen bopp lu ñuy def waxtaan cee yow Serigne Moustapha àggoon na foofu ak Senghor àgg fi ak Abdou Diouf fekk naa ko Touba benn bés ñu toog ma ñëw jox ko sama àddiya rakk taalibe xarit ba ma ko joxee la ma ko jox Alaaji may sa seeg mi ma àndaloon yal na ko yàlla yërëm moom itam ñëw ne ma kat am na benn kër buñ war a yokk ci boo paree visite yi ndax juróomi kër lañ préwaroon woon bu ñu fi jógee dem si xalif ba tekki ñaari kër am na yeneen ñaari kër yoo xam sëñ bi dégg na ko sëñ Moustapha dégg na ko bi ñuy jógee di dem la ma ko leen mu ne ma kaay yóbbu lii ndax lii prévoir ko woon dama ko joxoon moom la ma jox ne ma comme Alaji May Sene la ñu ngi lay xaar kër gi ak kër gi te ñëpp sutu sëñ maam Touba maam sëñ Touba la lii nga ma indi loon yóbbu ko nga jox leen ko man man danaa xaar man. Senghor nee na Senghor nee na te loolu man ñoo wax na ma ko sëñ Moussa mos ko wax lu tebbi ko. président Senghor ci mu wax na benn bés mu ne ma li ma neex ci sëñ Moussa Bassirou boo ko laajee la mu xelaat la lay wax même bu la neexul. kàddu gam lay wax yàgg yàgg mooy doon liy am. waa yàlla dafa defoon dafa defoon ak dëggu ci làmmiñam ba lu mu wax rek loola loolu moo ne ci xolam. président Senghor wax na ma ko man nii Popenguine parce que dafa recevoir sëñ Moussa Bassirou cinq heures et demi six heures ma yegg si mu woo ma ma ñëw fekk Popenguine ma dajeeg sëñ Moustapha nuyu ko siyaare ko ñu toog ci salon bi ñu woo ma keroog la ma wax ne ma sëñ Moustapha mii fonk naa ko trop. ndax am na jaaxle yoo xam ne su ma ci yeggee su ma ko wooyee moom dana wax la nga xam ne moom la ma citoyen war a wax lépp loo xam ne lii Senghor war na ko jël ci décision boo xam ne bii Sénégal la concerné dana woo Serigne Moustapha ne ko lii kat dama dama koy bëgg a jël ana lu ci jub ak lu jubul dafa mel nit koo xam ne da ngay ñëw rek taxañ ko yóbbu da ngay fexe li ngay dox bu fekkee yoonu mu doon na ca dara nga fexe mu leer ko nañ tey bañ la yaata ndax day discuter day casse droit day day xëcc euh, dafa dafa dafay dafa yan responsabilité su ko defee bu demee ba xam ne yow lii ngay def intérêt yoon bi la amul foo foo yem foo yem rek yaa fa yem la sa bopp. secret déjà du ko révélé yoo xam ne yi Serigne Moustapha moo moo ne bu mu am mukk Senghor bàyyi ko yoo xam ne bu ko defoon dana leen di coow lu bari waaye lu ci sëriñ Moustapha mos ne bàyyil mu bàyyi. président Diouf ñëw sëñ Moustapha jàppale président Diouf pour l' intérêt du Sénégal. sëriñ Moustapha moom lim ñeemoon wax ab bi fa amul kenn ko ñuy wax ndax doon xaritam dañu dafa gëmoon sëriñ Moustapha. loo doon doon homme d' toujours sëñ Moustapha mi ngi sàmm diine. waaw sa xarit sa moom nekk. Ah, sëñ Moustapha Bassirou booba temps nee na dégg na li may wax ci mouridisme xam na ni it murid la ma di ko seeti ma leen Tuubaa bu ma ko fekkee nuyu su ma ko fekkee Jurbel dem fa su ma ko fekkee Poroxaan dem fa réew mi yëpp xam ko Euh, mu jàppale ma ba mu ma jàppale ma jàppale ci lu wér ñépp xam ko taalibe yeeg waa këram ak ñëpp mu wax leen ni jàppale leen Ablaye ñoom ñoom ñu jàppale ma kon loolu li ma may doole ci bi ma nekkee président ci la bokk dimbale na ma ci lu bare bare bare ndax dafa ma daan xelal mu ñëwaan seet si ko daan euh, surtout euh, bi may nekk sax CEDEAO euh, foofu laa gën a yàggee def naa fa fukki at juróom benn yore naa fi CEDEAO Lomé daan na ma xelal lool lool wax dëgg dind dind na ci man ay jikko yu bëree bëri ndax euh, euh, xam nga kii euh, yomboon naa yenn yi di yëngatu boo boo boo mu waxee lenn loo xam ne mën naa kii dama daan waaye dama daan wax naan dama daan digal naan ma dangay ngay am da am xel di xelli bu mu ni téeméeri nag benn yet moo leen moo leen di sàmm waaye ñaar fukki nit ñaar fukki yar la waaw mu ni ku nekk yaram la kon nag surtout bu ngeen xamee ni bokk leen sax mel ni réew ñii ngi jóge Togo ñii ngi jóge Nigéria ñii nga jóge eh, Burkina Faso kon nag da ngay seet ku ci ne ni ngay ni ngay doxee moom boo leen naree boole benn buum du yàgg du yàgg yu mel noonu la ma daan wax ku ne mbay ci Sénégal dañuy wax Amadou Batoor waaye day sama njàmbaar googee nit ñi gis ci man ci mbay ba ni ma ko nawee sëriñ Moustapha moo ko dugal ci man lépp lu ma daa def rek damay xool ci sëriñ Moustapha lu mu sumb ni mu ci saxe ba am résultat ma ne may kat du ma sumb dara te di rocc ko ndax rek dafa metti Euh, Serigne Moustapha mbay moom kenn mënu ko tëkkale kenn ndax euh, euh, dama leen di wax ci affaire mbay mbayu noor la njëkk la ma njëkk a seetsee ne batoor ki yow mbayum noor maali ci dugal sax ndax ci moom laa ci ndigalam laa commencé mbay chef d'état yi itam saa yi ma euh, boole woon naa ko ci ñoo xam ni euh, wax dëgg soxla woon nañ koy gis waaye euh, moom mosula nungu génn mosula nungu dem dem fenn waaye wax dëgg day daan nañ mu yóbbante ay ñaan lu nekk daan mu ko surtout ki nekkoon Togo moom daan daan daan waaye ku xam Serigne Moustapha xamal nga ko ci liggéey ni ci meloon mais médiateur social la aussi. sëñ Moustapha waxuma man liggéey gi waxuma sell gi mu sell waxuma soppalu gi mu soppalu waxuma jox gi mu jox boppam soxna Jaara Buso waaye moom sëñ Tuubaa képp moo def lu nekk lu mu rëy rëy du ni def na ko sax ndax lu tax ko ñor moom sëriñ Tuubaa képp moo ko ñor man dama koy sentir lu bëri. daan na ma wax ni kër gi euh, nit ñi bari nañ fi. waaye doomu ki taalibe yi fi ne lu ma wax rek dañ naan waaw waaw waaw li ma bëggoon moo di ngay ngay ñëw toog ñuy ñuy diisante yow yow yow yow ma bu ma waxee loo xam ne lu dul noonu da ma wax ne sëriñ bi gisee wu ma ko noonu waaw loolu la de sorte que af ah, ci yëpp xam nga liggéeyu liggéeyu kër maam jaaragee liggéeyu daara daara jéeg lépp lu ci ne maak moom dañ ci daan dañ ci daan waxtaan lool lool lool lool. dafa am benn affectation bu ma amoon euh, bi mu ñëwee mu laaj ma ne ma dégg naa dañ laa affecté ma ne ko wax ma ndax foofu baax na waaw xam nga waxu wax ko ndax foofu baax na ma ah, de baax na am na daraja waaye dama daan am si si alal wax dafa soppiku waaw ndax ndey de post yi di nga am daraja waaye danga daan am. poste bi gën a tuuti moom mooy ëpp waaw maire dama tey sant yàlla tenga sant yàlla tey ngaa sant yàlla mu ne ma tey xool baykat yi nga xam ni nañ liggéey juróomi weer te bu ñu ko jaayee duma ma téeméeri junni ñu dund si at yow nag ñetti weer jot nga am ay million da war a sant yàlla ah man ko man de Mbàkke maa ngi jégulu sax waaw waaye man de yor si bunt bi ku ñëw mu ne li nuyu tam sa moom a gënal na waaw tàlla ma ñaanal waaw bi ma ñaanal ma jug moo ko sëñ Bas Touré sëñ Bas na ma daal nañ delluwaat ndax loolu doyul delluwaat delluwaatee mu wax ko ko ne ko daal moom dafa bëgg ñëw di tuub waaw bëggoon yasaa yesaa njëbbal mun naa ban na ko sëkk de man na ko sëkk waaw boo damaa yeesalaa sama njëbbal ci loolu rek ma ko wax man dama ko natt natt natt ba xam ni kii dara ñoru ko dul sëñ Touba moo tax su ma daa ñëw si moom sëñ rek laa daan xeeñtu waaw te fu ma ko gisee rek damay li may wax li ma ko daan wax dama koy wax da ngay dalal xelu taalibe yi seral seen xol. ku doon toppatoo taalibeem la aussi parce que procès yi ma daan dénk dossiers ma daan dénk toujours ay mbiru ay taalibeem la ay taalibe jàmbur mu woo la ma ne ma diw de dama bëggoon nga taxaw ko lu sama taalibe taalibe diw la waaye yaakaar gi mu am si man ndax xam ne dama am naa sañ-sañ si yow moo tax mu seet si ma pour nga régler ay problème am dama bëgg nga toppatoo ko nu mu gën a gaawee. Sëñ Moussa dafa wax ne man de ma sañoon sama taalibe dina am ngërëmal waajur sama taalibe euh, dina fonk diine sama taalibe ay kilifaam dinañ ko wóolu sama taalibe tamit dina ràññeeku cig taalibe te ak taalibe balaa nga koy doon da nga doon jullit xàqan soog doon ab taalibe dafa am loo xamee ni saa yu ne dafa daan feeñal fu ñu mës a nekk di jàng moo xam ñuy jàng xasee wax alxuraan bu waxtu julli jotee daan bàyyi la te ñu gis. ñun suñu digganteeg moom xaw naa yàgg ndax nekk na mag sëñ Basiru juróom-ñeenti at doon nekk moom ñeent fukki at ak benn yoo xam ne fu ma ne moom fa yóbbu. doo ngay tarbiya itam ni mu leen daan def bu nooree mu di leen mu di leen mu di mu di yóbbu leen fi barab dajale leen fa ndax bañu taxawal bu nawetee. mu di leen liggéeyloo te it liggéey bi mu leen liggéeyloo itam da leen di taxaw di leen seet mu sëñ Moustapha moom du def du def lu mu xamul lu ko waay di defal dana ko xam ndax nan koy defee moo la koy wax te itam boo ca defee loo ca war a def muy mu moo koy dindil boppam kenn du ko defal loo xam ne nii bokkut ak ni ko bëggee bu dee tabax ak bu dee kër gu muy natt ak bu dee dëkk ak lu mu mën a doon day wax nii laa ko bëggee te noona dana aw yoon góor kenn ku koy mën a dindi mën faa def lu ko gën du am. koo xam ne kii doomu aadama nga mbaa nga xam sëñ Moustapha Bassirou xam nga ko ci moom as gor la ab jullit la ab taalibe la ku bëgg boppam la ku bëgg bokkam la ku bëggu nitam la fii di gis naa fi mm, mu taxaw fi ay taalibe taxaw boo xam ne bii bu ci yemoon nit doy na ab taalibe waxuma la ak àllaaxira ndax taalibe mënut mu soxla nga taal sa oto yebal sa doom baa nga yebal sa jëwiñ la ci war nga def ko bu kooku bu ca tëj waree nga wax bañ tijji ko la ci war nga def ko ci loolu jëmi si musuwaal foo nat xelam ak xalaatam foo ko nat si àdduna rek weesu na ndax da ngay dem da ngay dem ba defee ni ba da ngay defee kii li muy wax yàllaa ko wax loo mbaa muy def yàllaa ko def nga demaa demaa dem ba defee ne képp ku mbokkal sëriñ Touba xam na Serigne Touba loo xamul mbaa man ci loo xamul mbaa mu def ci loo dibul te dara muy ko lu ak taalibe bi lim am lépp ci ci sëñ Tuubaa ko ci la ko delloo lépp lu ko sëñ Tuubaa defal lu loo xam ne nii technicien la sëñ Abdou Lahat waxoon ne ah, yomal xayaam day bàyyi naa la sama sëñ Tuubaa nun tëri bi sax ñu ko war a wax ndax képp koo xam ne kii sukk nga jëb sëñ bu ko sa yitte matee mbaa sa tëri bi mat ko defal na loo xam ne lii kenn defalu la ko loolu nag hmm, dañ dañ koy dañ koy sant yàlla ndax lii sant moo moom ànd ku mat ànd ku mat ku mat a boo boo boo boo manqué mu matal boo matee mu dolli la kooku moom yàlla defal na ko suñu sofa si ñu ànd yëpp noonu la àndee ñoom kenn ku ne lu war moom defal na la ko bokk bokk fa mbokk yi la tàmbalee mbaagul saalum kajoor bawal njaamur foo dem la waaja ne woon Kajoor ma jaan foofu ñu ne sëñ Bassirou nee na waaye koo fi dem ci tali suñu soix da ngay wax li ma suñu soix defal moom. jàngalekat la woon. ku ko ku ko topp de ah waxuma ni doo juum de waaye juum la yomb.